kawteef daal di xew foofee ca diwaanu ah, Tiwaawan Pël ñaari jeune nag ñoo ñoo fa daldi di jotee kenn di ab paaka daal di koy jëmale ca beneen morom ba daal di koy jam jam bu méttee métti kon ni ngeen ko gisee si suñu ay image mbir mi nag xewee foofu ca diwaanu Tiwaawan Pël tey ci ba bëccëg gile bi ay 17h jotee rek tegal ay simili ca la mbir moom lee daal di xew mbir ma nag daal di metti lool ginnaaw bi nga xam te ne ñaari ndaw yooyu lee daal di nañ jotee jote bu ñàkk fayda kenn ka nag ca la daal di jëlee li nga xam te ne moom moo di ab paaka daal di koy jëmale eh, ca eh, morom ba mbir ma nag xew foofu ca diwaanu Tivaouane ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk diwaanu Tivaouane Peulh daal nga xam ni moom moo di mbir ma daal di am ab nakar ak ab tiis boo xamante ne nii eh, dañ koy faral di am li ni mel dafay faral di am foofee ca diwaanu eh, Tivaouane Peulh ba tax na rek li nga xamante ne moom moo di waa brigade ba nekkee foofee ca diwaanu Tivaouane Peulh ña cay def liggéey bu am information buñ ci mujj am gannaaw bañ ko yóbboo ca district sanitaire bu Tivaouane Peulh dañ ne vite fait nañ ko jàllale fi nga xamante ne moom mooy euh, hôpital bu caaro Thiaroye waaye nag gannaaw bañ koy évacuer jëm foofu la ci la ñàkkee bakkanam ci yoon wi waaye nag di wax ne ki nga xamante ne moom moo jëfoon jëf ji itam yoon mujj na ko teg loxo ba jamono ji mu nga ca brigade bu Socabeg ca Tivaouane Peulh